dal leen ak jàmm ñu jukki leen laaj ak tontu bi doxoon ci diggante journaliste bii di Cheikh Yérim Seck ak gendarmerie section de recherche xibaar bi ñi ngi ko taataane ci ëttug yëglekaay bi di libération journaliste bii di Cheikh Yérim sekk nag ñi ngi ko convoqué woon ca gendarmerie ginnaaw ay kaddu yu yëkkati woon ci lu jëm ci entreprise bii di Batiplus te tuddoon ca ñi nga xamante ni ñoo di waa gendarmerie waaye kii di ministre de la justice maître Malick Sall wax yooyee nag mi ngi ko xamle foofee ci plateau télévision bi di 7TV te Maimouna Ndour Faye doon ko dalal ca waxtaan ba nag journaliste bi jot na fa yëkkati ay kàddu jëmale ko ci gestion bu réewum Sénégal rawatina ni gouvernement bu Sénégal di gérer lépp lu jëm ci wàllum foncier ci kanamu enquêteurs yi nag journaliste bi di Cheikh Yirim Seck moom nee na li ko bett moo di dafa dégg ñu naan xaalisu famille Farès te ki nga xamante ni moo di directeur u Batiplus di Christian Samra dañ ko placé contrôle judiciaire te jamono ji mu ngi doxi soxlaam Cheikh Yérim Seck njiital kërul liggéeyukaay gi di Yérim Post nee na nag li muy laaj moo di lu tax fi jamono toll maanaam ci atum 2020 gendarmerie di convoqué ay journaliste ci jamono joo xamante ni famille Fraisse bi nga xamante ni ñoo ngi taq ripp ci mbir mi ñu ngi doxi seeni soxla kenn tegu leen loxo nee na laaj bi moo ko jaaxal Cheikh Yérim Seck nag ci kanamu enquêteurs yi dellu benn yoon ginnaaw ci wax ji mu waxoon ca plateau 7TV lu jëmoon ci 4 milliards yi nga xamante ni moom la ni woon gendarme yi jotoon nañ ko saisir te nga xamante ni genn wàll gi rek lañ joxe woon bu nga xamante ni journaliste bi di Cheikh Yérim Seck ñaawlu na ko bi mu jàkkaarloo ak enquêteurs yi moo di menace yi nga xamante ni maître Malick Sall di ministre de la justice yëkkati na ko jëmale ko ci moom li lay Cheikh Yérim Seck naqarlu na ko loolu